daal di tekki nombal tànkam fëgg buntu PDS won leen ginnaaw ne lee lépp nag Karim Wade rekk moo nekk ca gannaaw man dañu may rey rek waaye duma dellu ginnaaw mukk ca wet ga nag maam jaara faam di menacé moom itam yéeni kaay bi ne lu jëm ci présidence jigéenu PDS nag faatu saw jamono ji moo fay doxal fédération nationale bi ëmb jigéenu parti démocratique sénégalais nag fi mu toll nii am nañu patron bi yees Fatou saw moo fa daal di wuutu kii di Woré Sarr démb la ko maître Abdoulaye mi nga xam ne rek mooy secrétaire général parti bi daal di koy tabb nag daal di koy naqari lool moom Woré Sarr mi nga xam ne rek jàpp ne ne nag ab surprise la te loxol Karim Wade moo na ca gannaaw fi mu toll nii nag won na ginnaaw waa parti démocratique sénégalais laa séglekaay ne ay coppite kay am na nag ci bopp cadre jigéen ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ca biir PDS waree saar jamono ji nag ma nga yàq lu mel ne xamee kii di Karim Wade ak Saliou Dieng yër leen boobee yëglekaay enquête moom daal di xëyee nag ci beneenub sëy boo xam ne rek tas na jamono ji doxoon ci diggante Benno Bokk Yaakaar ak waa Alliance des forces de progrès yéenekaay bi ne AFP jamono ji nag won nañu ginnaaw waa Benno Bokk Yaakaar ginnaaw fukki at ak ñaar yoo xam ne rek ña nga doon ànd di doxal jamono ji nag ñoom progressiste yi ña ngay fësal jafe yi nga xam ne rek moom la ñu doon dund ca biir Benno Bokk Yaakaar ña ngay xam ne ni daañu amal ab congrès nag ngir xam anakan la ñuy jiital ci boppu alliance bi ngir mu daal di wuutu Moustapha Niass Mamadou Sy Albert di xam ne ci biir yëglekaay bi ne élection législative yi ñu jëm daal ci la ñuy xam dëgg-dëgg taxawaayu poids AFP l'info yëglekaay xëy tey jii moom it def taxaw seetlu ci lu jëm ci ajig màkk gi ne volub Air Sénégal bi njëkk retard nag jamono ji bàyyi na fi lu toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar ci ay pèlerin yéenekaay bi ne démb la sénégalais yi waroon a dem ca dëkk bu sell boobee di màkkatal mukarama waaye nag Air Sénégal da leen a mujjee bàyyi ca mag bu aéroport Blaise Diagne bu jam ñaajo avion bi nga xam ne rek moom la ñu waroon a jébbal Air Sénégal ngir mu jël si leen moo leen juy jaarul ca aéroport ba waral ba jamono ji nag délégation générale bi nga xam ne rek ñoom la ñu dénk lépp lu jëm ci ajug màkk gi nag ña ngay lépp luy seen ay responsabilité bi baaraamu tuuma bi le compagnie di Air Sénégal Abdoul Aziz Mbaye nag ma ngay leeral mbir yaak ni mu demee ma ngay xam ne ni nag délégation bi la jël na lépp loo xam ne rek mooy ay matukaayam ngir yóbbu pèlerin yi ca dëkk bu sell ba waaye nag waa Air Sénégal ñoo bàyyi ba mu jënteel gi rek ñu xamal leen roppalaan googee ñu waroon a yóbboo ñii di pèlerin yi mujj la ñëw ca aéroport l'observateur fellu ko ne moo taxit Air Sénégal bàyyi na fi lu ëpp ñaar téeméer ak juróom-ñetti fukki pèlerin yoo xam ne rek jamono ji ci njàqare la ñu nekk délégation boobee nag héberger ci hôtel yi waaye ña ngay sàkk ñu jox leen ay ndàmpaay Les Échos yëglekaay ne fi mu toll nii nag ñaareelu vol bi nga xam ne moo waroon a yóbbu ñooñee waroon a aji ca màkk nag ñoom da leen a mujjee bàyyi fii ci réew Sénégal jëwriñ ji nga xam ne rek moo di El Malick Ndiaye ñu dénk ko lépp lu jëm ci wàllu dem bi ak dikk bi moom xam le woon na ni nag dinañ amal aji màkk ren du am benn jafe-jafe waaye pèlerin yi jamono ji nag xamuñu ana fan la ñuy teg seen tànk laas yëglekaay xëyee tey ji nag ci coow li nga xam ne rek moo juddu woon ci li jëm ci affectation bu général Kandé yéene kaay bi ne ñaari taskatu xibaar yi nga xam ne rek dañ leen a woon ca section de recherche mu di Mouhamed Gueye ak kii di Pape Moussa Traoré jamono ji bàyyi nañu leen ñu ñibbi seeni mbokk lii quotidien ne lu jëm ci arrestation boobee kay ak convocation bi nga xam ne rek defoon nañ ko jëmale ko ci kaw i taskatu xibaar pouvoir bi ma ngay rëkkale ñaari directeur yooyee nag bàyyi nañu leen jamono ji Sud Quotidien daal di xam ne nag ne démb ca section de recherche nag ci noppi nag dañ leen a bàyyiwaat ñu ñibbi seeni kër kii di Ibrahima Bakhoum di ab taskatu xibaar nekk itam formateur di woo ñii di taskatu xibaar yi ngir ñu ànd ak professionnalisme ci wàllu liggéey bi Sud Quotidien tey jii la mu xëyee bokk na ci journée set setal bi nga xam ne rek moom la njiitu réew mi wootee ngir ñu daal di koy amal niki tey jii sam di benn fan ci weeru juin yéenekaay bi ne président Diomaye Faye nag tey jii décrété na ko mu di journée set setal boo xam ne rek mi ngi ci woo askan wi yépp ngir ñu génn daal di bale Sénégal ba mu set wecc loolee nag lam ca jublu ne bokk daal di waajal lu jëm ci nawet bi nga xam ne rek yenn saa yi dañ ciy nemmeeku ay jafe-jafe le soleil yëgle kaay fell ko na jamono joojee nga xam ne rek moom jiitu réew mi ma ngay woote set setal fii ci biir réew Sénégal fekk lu jëm ci wàllu occupation anarchique bi ne xus ci biir Ndakaaru moo xam ci point yi nag ak bërëb yi nga xam ne askan wa dañu fay teew nag foofe fépp soppi nañu ko def ko ay dëkkuwaay ñu bëri ci askanu senegal nag ci kaw pont yi la ñuy fanaan dem nañu sax nag ba def katu ñaaw te fii dëkkuwaay di fa buur jeexalee ak tàggat yaram réew mi sport ma ngay tey jii nag ci finalu ligue des bi nga xam ne rek war naa dox ci diggante Real Madrid ak Dortmund yéenekaay bi ne ci diggante rêve ak exploit lañ nekk jamono jii record yëglekaay fell ko ne ligue des champions boobee nga xam ne rek tey jii daañu amal final bi bu 19 heures jotee nag mun li mu bëgg jamono jii nag mooy xañ Real Madrid 15e couronam sunu lamb la ñu koy jeexalee mi àddu tey jii nag jëmale ci jangante bi nga xam ne rek mi ngi war am ci diggante Pape yi ak caatu Doudou Fall yéenekaay bi